def ko teg ci tamit tàkkusaan teg ci timis gay waaw ku nekk su nekkee jullit nga li wette mooy war nañ koo xamee ci say kàddu sooy wax wala ñu xamee ko sa solaay sooy génn dem liggéey sa office yaa fa dëkka loolu sa kiir la sa bàmmeel óorut ndax ëllëg foofu lam laa fekk kenn xamut bul den bu sa xel dee dal yóbbaaleel sa kaala gu jot am fa sa kay ca palaas ba man foog naa ne si Gambie yi amul benn place boo xam ne dinañ la julli jullil nga buub ko julli ba pare buub suuf si coono bu day noonu duñ la ko su ko defee nga yóbbaale looy jullee su waxtu julli jotee soo gisee góor ñi di wàcc di jàpp wàccal nga jàpp dem julli soo gisul tamit kenn julli yow sa julli la jógal nga def ko ndax loolu yàlla mu ne mooy wane ne ëllëg mooy tax li nga joxe ci lu baax ma nangu ko mu ne waaye ñi nga xam ne duñ julli lu dul ñu tayal duñ joxe tamit lu dul ñu sib pour joxe sarax sax buñ ko ekkati di joxe ñu ngi ñoom ñu ngi ci seeni xel ñu ngi rëmm di naan ah subhanallah sooy joxe léegi doo amaati dara. wala ñiy laaj dañ bari. Mm-hmm. fekk yàlla mbiram passé na foofu. Mm-hmm. joxeel si li la yàlla jox. subhanahu wa taala soo su ko defee loolu yëpp nañ ci bàyyi xel jikko la yoo xam ne dafa tax nit ki mu gàllankoor la li nga jox yàlla borom bi tabaraka wa taala ci tiyaabo yàlla du ko jël. te bul fàtte ne yonent bi salallahu alayhi wa sallama dafa digle julli yàlla tamit daf ko ne waamur ahlaka bi salaati wastabir alayha laa nasaluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lil taqwa wala lil muttaqin mu ne yàlla borom bi tabaraka wa taala daf na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga sa ñoñ ñu taxawal julli loolu mooy man yàlla li ma soxal moo ma itteel tamit moo gën tamit ci ñoom su ko defee nañ di góorgóorlu te jàng tamit niñ ko defee am na solo ndax man dama di gis jigéen ñu bari dañoo julli julli ci kaala gu oyof boo xoolee gis noppa peppi kawar yaa ngi génn am ñoo xam ne na allahu tabaraka wa taala wa hadaana wa akram na wallahi yal ñu yàlla jubal ñun ñëpp jubal leen te teral ñu aysa ma gis nit di julli bàyyi mees si biti lu xew mu ma du moom mees rek la mm-hmm. waaye ci kawar gi nga ko yokka de su ko defee ñeneen dañoo nekk di julli seen kawar yi bopp yi sax di feeñ loolu yëpp nang ci ba benn peppi kawar bu génn sa julli gi doj na ndim yaa ngi ko yëg gis ko su ko defee nga muur sa cëri yëpp tamit loolu la sa santaane kaala yu mag yi na nga ko lëmasuwoo sa yaram bi ngay julli mbagga mi nekk si safara yàlla wax na ko de mu ne fa waylun lil musallin fooyee julli nag rawut ko cob comme ganaar ni moo cobee dugub yi si suuf wala boog yaa xam ni nga bifiñ ba fañee julli gi ba def ko si ñaari minute wala sol loo xam ne munta julli nga nar koo julli kon nañ ko bàyyi xel loolu nekkut loo xam ne lu baax la nañ xam balaa ñoo jëf moo ëpp tiyaabu làmbatu jërëjëf Seyda Hadijatu Diouf leer na ne gannaaw weeri koor wax dëgg neex yàlla niñ daan julee si weer wi rek dañ war a continuer di julee si waxtu wi comme suratul nisa <laughs> inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquutan ñu def ko sa waxtu wa mm-hmm. waaw si biir weeri koor wi tamit gannaaw julli it naafi la mm-hmm. jullit ñi dinañ dee góorgóorlu bu baax a baax di naafi la guddi parce que nekk loolu loo xam ne tamit lu baax la suratul bani israel yàlla ngay wax ne wa mina leeli fa tahajjud bihi naafilatan mm. lak asaka an yab asaka rabbuka maqaaman mahmuudan mm, mm. loolu mooy benn wàlla si guddi gi war nañ ko naafila mm-hmm. fexe jóg ko julli ko def ko la daal mm. yàlla dinañu ekkati foo xam ne fu kowe lay doon mm-hmm. ba pare tam am na hadis boo xam ne tam salman farisi moo ko solo yal na ko yàlla gërëm mu ngi wax ne yonent sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne waaw dañ war di la parce que nit ñi ñu jub ñu ñu jiitu woon mm-hmm. loolu lañ daan def parce que la nekk na loo xam ne daf ñoo jegeloo suñ borom ba pare tax ñu réccu suñ jëf ju ñaaw ñi ba pare tamit musal ñu ci ay jàngaro soo nag suñ sukkandikoo si aaya alxuraan bi nekk si suratul bani israel mm-hmm. ak uh, xadis bi nga xam ne salman farisi moo ko solo mm-hmm. naka lañu war a ginnaa nag ñaaxee juliti ne wax dëggaanee yàlla gannaaw weeri koor tam naafi la nekk na loo xam ne lu baax la lu ñu war a def la mm-hmm. ah, jërëjëf Aïcha wax nga lu am solo te sa istidlaal bi wér na fiñ ko wér ci li nga xam ne moo nekk ci kitaab alquran ak tamit ci sunna di waxi yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci xadiis yi euh, salmaanul farisi boobu macha allah lu am solo la naafi la baax na parce que leeral nga ci aay bi ne yàlla ekkati ci sa daraja nekkul li muhammad salallahu alayhi wa sallam kese de dafa faj soxla li nga wax te tamit moo gënoon dem bindal ma ma naan wala bindal ma ma takka moo tax ma ne nit ku nekk yaa gën a xam sa boppa ci lu njëkka su ko defee baaxoon na ngay jug sa soxla yi yaa ko xam ngay ñaan yàlla borom bi tabaraka wa bul fàtte weeri koor ak riyaayam bi yëpp ak tam lañ ci doon sàkku yëpp yàlla boole na ci ñaan leen ma kon su ko defee ñaan tamit ñaani guddi yooyu dafa baax tarab julli guddi tam dafa baax tarab mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ko ci alquranul karim mu ne ko ne inna nachiata leyl hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila parce que lu tax inna laka fi nahaari saban tawila mu ne yàlla borom bi tabaraka wa taala wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquranul karim mu ne ko gis nga julli gi ngaa jóg guddi di di julli ak alxuraan ji ngaa jàng ci guddi gi moo gën a neex pour xol dégg ko ni ko waxtu boobu noy si jeex nañ xale yi nelaw nañ yaay yuy gétte ne amatut jalab-jalab bi bëccëg bi ñëpp dal nañ nga toog guddi yëpp dal su ko defee déeyoo beeg yàlla dafa gën a neex alxuraan ji tam ci la ko xol di gën a mën a xerewlu ak xel ak di ko dégg parce que bëccëg bi yépp yaa ngi woon si jaabante ak ci ay soxla ak liggéey pour jàng ci alquran dafa jafeñ mu ne ko tamit inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi layla wa nisfa wa thuluthahu wa taifatu min alladina maak su ko defee yàlla borom bi tabaraka wa taala xam na ne wax dëgg yàlla yonent bi saa sallam ku daan naafi la guddi la Aïcha radiallahu taala anha mu ne yonent bi saa sallam daf daan taxaw hatta tawarramat qadamaahu bi ñaari tànkaam yi néew بن كلاتي يا رسول الله يوم من غم نغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لا أمنكو لا ينتبه أمن بكار كوس ينتبه صلى الله عليه وسلم يا لبرم بتبارك وتعالى موك سك جن اللي كتير لبلون بندر كن صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله تعالى عنها ينكو يو ينتبه يوم يا لبالم بيب بكار بو أم بو دف ولا ولا بو دف عنقول يومي أم غارنتي بدأ ينون تيال يو ياي نافلة بس تانكاي mel nii mu ne afala uhibbu ndax duma bëgga an akuna abdan shakura ndax bëgguma ma nekk jaam boo xam ne wuy delloo yàlla njukkal ñaata xiiwal lañu yàlla may luñ ko ci delloo ñaata xiiwal bari lool soo su ko defee booy delloo yàlla xiiwal dangaa mën a nekk waay yàlla dangaa nekk tamit ku jegeñ yàlla soxla boo am tamit yaa ko fajal sa boppa kon su ko defee jógal guddi yàlla dina ci ekkatee darajab jullit waaye tam waxtu pour nangu ñaan la waaye waxtu bu dal la tamit du ci weeri koor kese loolu tax ma ne euh, beneen bi sax yàlla sax dafa bëgga si hadis boo xam ne suñu yaay Aïcha moo ko wax ne yonent bi sax sallam mu ne yàlla borom bi tabaraka wa taala mu ne euh, dafa bëgg a jëf ju baax yàlla bëgg na jëf ju tuuti lu jëf tuuti tuuti yàlla bëgg na ko waaye su continuer di sax lu tuuti te continuer yàlla daf ko bugg kon su ko defee euh, lii di sax naafila soo ko defut waaye bul bàyyi mukk shafa ak wite bul ko nelawaale mukk su dee sax fajar euh, jotangut sax fexeel sax jéem koo fay del julli gee teg ci tamit naafila emut ci yonent bi salaa sallam def na sax ay ay raatibaat comme raatibatul fajri raatibatul zuhri raatibatul asri nga am tamit euh, raatibatul yeneen julli isha comme julli gu nekk bala ko julli am ñaari rakka yoo këf këfal mm-hmm. euh, jullitu subaar su paasee nga def ñaar soo munee def foo balaatu subaar mm-hmm. loolu yëpp naafila la yàlla borom bi tabaraka wa taala yonent bi salaa sallam wax na ko ci xadis bu wér ne yëpp nii la ka bihi baytan fil janna mm-hmm. naafila kese jox la néeg ci aljanna kon julli farata nag kon nag yàlla borom bi subhaanahu wa taala dafa bëgg lii nga xam ne mooy loo dolli ci jëf yi fi la mooy loo yokka beneen bi mooy nga mun a tawba tawba mooy lan al intiqaalu min al ahwaali al mazmumati ila ahwaali al mahmuda ndax si koor gi boo ko setluwee biñ cee dugg foog naa loolu lañ defoon tuub ci yàlla borom bi tabaraka wa taala tuub mooy lan nga génn ci jikko yi nga xam ne dañ suufe nekk ñu xememe yàlla santaane wut ko bëgg ko nga dem si jikko yi nga xam ne dañ kawe te yu yàlla sopp la te yum santaane la loolu mooy tuub su ko defee mu bàyyi nga bàkkaar yi nga nekkoon ci jamono bi nga xam ne yaa ngi tuub beneen bi nga rëccu bàkkaar yi nga xam ne ñoom nga defoon doo ko defati mukk moo tax ma ne dina nekk mandarga pour kuñ nangul sa weeri koor gannaaw weeri koor lépp lu baax loo defoon ci koor gi dafa war a continuer julli yaag ñaan yaag jikko yu baax ya bàyyi jëw di sol yu jot ragal yàlla si sa bopp ba ci sa bopp beeg sa wey yi nga defoon ba ci sa gémmiñ gi ak loo daan lore nit ñi yépp moo xam programme la woon lu mu mënutoon yi doon nga fexe ëlbatikuwaat jàllar bi loolu yëpp ndax kat lu luñ ne dafa baax ci weeri koor xaraam ci lu dut weeri koor sëy la woon ak lekka naan yàlla daf ne bi ngeen oor yi ci bëccëg bi waaye bi ngeen dogee yëpp dangan na su ko defee beneen bu ñetteel ba mooy euh, yow mi nga xam ne yaay def kati baakaar nga réccu nga fas ne dootuloo ci dellu bi faw su dee nit nga tooñoon nga delloo ko i aham la baax na am na solo dina yar tamit jullit bi waaye tam eh, loolu tamit moo nekkoon